fekkee euh, conférence de presse su tey bi dafa nekk conférence de presse bu am solo waaye balaa ñuy sori ci wax ji euh, dama jàpp ni ñi nga xam ne ni Macky Sall daf leen tëj ñu leen di woowe les détenus politiques waruñu leen fàtte ñooñu ñu ngi leen di wax ne leen wax nañu am satisfaction ci taxawaay bi ñu am bi tax ñu tëj leen parce que boobu taxawaay contribuer na ci pression bi nga xam ne ni moo tax ba le président de la république Macky Sall changer avis jël beneen décision donc du ñu leen fàtte tenez bon incha allah yàggatul bientôt vous serez tous dehors auprès de vos familles et je dirais tout ça pour ça pendant presque deux ans le président de la République Macky Sall a tenu en haleine le peuple sénégalais avec un mutisme légendaire, un silence expressif. Et dès ce matin, nous avons constaté que certes, une certaine presse glorifiait déjà l'acte qu'il a posé, considérant que le président de la République Macky Sall était un homme d'État. était un grand homme, un démocrate, quelqu'un qui veut mais ñiy wax loolu xanaa dañu fàtte li nga xam ne nii moo fi am depuis 2000 depuis les élections de 2019 bundu xataal askan bi teg leen coono leader politique yi mu teg leen pression ñi mu tëj leen askanu Sénégal amatul jàmm ba li ci mujj mooy tabaski bi gis ngeen coono bi Sénégalais yi di dund ndax coono bi nga xam ne ni moom la président de la république Macky Sall teg donc li mu def démb wax ni du nekk candidat lors des prochaines élections présidentielles de 2024 nous prenons acte mais nous restons très vigilants parce que am na ay cas de figure yoo xam ne ni ñi ma jiitu wax nañ ko donc loolu nañ ci bàyyi xel xam ne c'est un très grand joueur waaye lii yëpp lii nga xam ne nii moom la ci nguur gi war a jàng te certains politiques wax ci jàng moo di politique nekkatul ay naxaate politique nekkatul njuuj njaaj politique nekkatul ay deal politique nekkatul ay compromission sénégalais yi yeewu nañ xam nañ lan mooy politique xam nañ kii défendre seen intérêt ak kii défendrul seen intérêt donc ñi nga xam ne nii dañu yaakaaral ne politique ay dil la ay njuuj njaaj la nax nañu seen bopp xam nañ ne sénégalais yi loolu dootul am politique bi nga xam ne nii moom la askan bi bëgg mooy politique bi basé ci éthique basé ci transparence basé ci respect loo wax boo dee njiit nga respecté ko bu fekkee ne am na loo gëm muy principe bu ñu doon dagg sa baat ci principe boobu ngay taxaw askan bi nangootul ay vecteurs sociaux wala ay kilifa diine yu ñuy compal ñuy taxaw di yàq wala di défendre l'indéfendable am loo xam ne nii mënatul ne askan bi xam na ko askan bi dana taxaw continuer de teg pression te fi may daanele mooy fi nga xamante ne nii moom le président de la république Macky Sall tax bokk na li tax mu changer avis et il a envoyé un signal très fort à ceux qui sont à ses pour wax leen ne leen yéen ñi nga xam ne nii da ngeen bëggoon ma mbëkk miir bi yéen ñi nga xam ne nii da ngeen bëggoon ma taal Sénégal yéen ñi ma doon wax gëmmal te dóor yéen ñi ma doon wax xoolal te dóor fi mu nekk nii xam nga lu ma tal jël samay bagage balaa dëkk bi di tàkk balaa sama lépp di des waaye nag na xam ne lii mu def na xam ne lii mu occasionné depuis 2021 depuis 2019 sax laay wax bu ñu ko falee ba léegi il faut ñu teg ci suñu baaraam présidence de la république maître Juan Branco wax na ko commandé na ay armes lu musul am ci Sénégal la présidence selon maître Juan Branco a commandé des armes armes yooyu dégg nañ pap Alé Niang li mu ci wax barke démb ay nervi lañ ko jox nervi yooyu téye ko utiliser ko rey ci ay sénégalais communauté internationale bokk na ci lu leen gën a alerté loolu ci la le dossier de la CPI bu ñu jàpp ni rek c'est lu ay caaxaan la président de la République su changé avis c'est parce que la pression elle était forte aussi bien au niveau national qu'au niveau international donc nag su ñëwee def une banalité ne man damay respecté constitution bi nga xamante ne nii man maa ko changé woon loolu jarul ñu ko ci tàccu c'est une banalité on prend acte waaye nekk lu extraordinaire waroon na ko wax depuis très longtemps bu ko waxoon ñii fi dee du ñu dee bu ko waxoon ñii fi ñàkk seeni seeni matériel en termes de marchandise du am waaye moom moo choisir garder mutisme garder ce silence pour continuer bàyyi sénégalais yi ñu nekk ci tension boo xam ne nii bu xamul woon kañ lay dakk yàlla def na dakkal na ko démb waaye ñu ngi koy wax mu ngi woote dialogue ñun day tëjuñu buntu dialogue waxoon nañ ko duñu dem ci n'importe quel dialogue demuñu pour dealer su fekkee ne dafay woote pour des élections inclusives ñëpp bokk président Ousmane Sonko ñëpp Déthié Fall euh, euh, Soxna ay Mbodj Serigne Moustapha ñëpp bokk boobu dialogue ànd nañ ci mais pas dialogue boo xam ne ni da ngay ut caution pour écarter ñenn ñi boobu dialogue intéressé wuñu te ñu ngi wax sénégalais yi ñu rester vigilant c'est pas parce que président de la république wax na rek ne du candidater une troisième fois que dañuy croiser les bras qu'on reste vigilant blocus bi am kër Ousmane Sonko na ko dindi teguwul ci dara bàyyi ko mu ñëw exercer ses activités politiques loolu nag Yewwi Askan Wi dina ci veiller et puis ñu wax sénégalais yi qui soit vigilant et qui reste alerte ba nga xamante ne nii lii fi amoon dootu fi am te gëm naa ne mënatu fi am te dootu fi amin wasalaamaaleykum wa rahmatullah La parole est à Bipsi. <laughs>